asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi nga xam ne yenee ànd ak site bii di 24actu euh, tey nag ñëwaat nañ ci beneen bërëb euh, boo xam ne nii euh, ñëw nañ fi tey ki nga xam ne moom lañ seet si tey moo di Cheikh Abdou Lahad Seck góor yàlla mu waaye nag buñu nee Cheikh Abdou Lahad góor yàlla du bett kenn ndax la maam ya nuñ koy waxee moo nekk ci yi tey nag moo waral ñu ñëw fii fekk ko ci këram sëriñ bi ginaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay jaar. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi may seetaan yépp ak yi ñiy dégg sama kàddu bokkun mu ngi sandana min sarri si hasadin ma sarri fammin wa sarri xayni yàllaaw wa sarri sihirin wa sarri xalqi insihima ma jinnihim wa sawaati sumi yàllaaw inni jaxaltu ko fii daareen yaa siqatin xisnan xasinan fa kun mal jaay yàllaaw mbokki jullit mbokki jullit yi may seetaan ñëpp maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare di ñaan yéen ñi may seetaan ñëpp ku ma dégg rek yàlla na sa ajo faju ku ma dégg sama kàddu gi yàlla na sëñ Tuubaa defal la ndam ak tawféex barke sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ bi ginnaaw loolu ci nuyoo bu matal bi macha allah comme ni nga ko wax ñu tey nag euh, sañ bi euh, da wax lu am solo danga ma woo ne ma tey dama bëgg nga ñëw ñu waxtaan ci li nga xam moo di xam-xam ak njëriñ ginnaaw bu loolu jàllee kan moo di seex Abdou Lahad Seck góor yàlla. waa sëñ Abdou Lahad mooy Abdou Lahad Seck ñu di ko wax Cheikh Abdou Lahad góor yàlla. mi ngi juddee Touba màggee Touba yaroo Touba ay xam-xam mu donni ko ci maamam donni ko ci juróom génn jàngi xam-xam xam nga booy waxtaan te li ngay waxtaan doo waxtaan ci xam-xam bis bu set da ngay waxtaan ci lu jariñ loo xam ni ay wax yu jàll képp la te du doon xam-xam day mujj say wax dootu am jariñ moo tax bi nga ma waxee may ne tey dama bëgg nu waxtaanee xam-xam ndax euh, liggéey bi ñuy liggéey muy liggéeyub lasraar ñu ci liggéeyal yàlla ci jàmm ñi daa am nu ko nit war a defee war ngaa jàppale nit ñi war ngaa jàppale sa bopp ñi ngay jàppale sa bopp mooy bu la diine jam bu la lislaam jam bu la lenn jam moo tax ma ni tey dama bëgg nu waxtaanee xam-xam xam-xam nag mooy wàllu lasraar noo cay duggee ak nooy doxee ak nooy dimbalee nit ki moo tax may la naan waxtaan ci xam-xam ci lasaraar boobu la ñuy dooree jamono ji ku ne xam ne euh, yëngu-yëngu yu bëri na ñiy woote te mu bëri na comme ni nga ko waxee ba tax na fi doon kenn xamatul fan la ak nan la ak naka la moo tax tey nga woote ñu ñëw ci wàllu xam-xam lasraar la ñuy door si nga euh, est-ce que baatu lasraar ak euh, jamono ji ni mu toll ak li nga xam moom moo di wàllu seet ak yooyu euh, suñu ab laat ndax yooyu mun nga ñu ci indil ak yi nga xam ne yow noonu ngay jëfandikoo ndax ñu bëri ñu ngi may wax ne ma am naa yóbbante yoo xam ne nañ boo demee ba jàkkaarloog suñu ab laat na nga ko wax ne ko suñu ab laat maam ni muy defee lasraar lan moo tax moom ak ñeneen ñi ñuy def wuute mu wuute leeral ñu loolu li waral loolu mooy xam nga bu la yàlla sama borom bindee wàcc la ci jaam ñi loo xam ni moom la moom la soob mu neex ko mu def ko ci sa jëmm war na boo ciy dund ak ay nit baa nga ciy dox ak ay nit wa war ngaa xam ni ngay dunde war ngaa xam ni ngay doxee te e, liggéeyal yàlla ci jaam ñi daa am nu ko nit war a defee am nit nu mu ko war a doxee waaye am na loo xam ni boo ko ni boo ko ni doxee rek bis bu yàlla sàkk e, ci juum ngay dëkk mbaa ci yàqule ngay dëkk Euh, nit booy booy liggéey wàllum nasaraar bi njëkk mooy na nga set ci sa jëmm na nga la na nga nangoo jaamu yàlla. ñu bëri ñu ngi wax ne suñu Abdou Lahat euh, nu muy seete ak seet yi ni ni nga xam ne moom la suñu gars yi ñenn ñi ñu seete lan mooy seen différence. waaw man damay seet ci damay seet seetin woo xam ni damay bëgg boo ñëwee ci man di seetlu bul ma wax la ngay seetloo ndax boo ñëwee di ma seetlu rek wax ma la ngay seetlu yow seetlootoo da nga maa wax li ngay seetlu te ñu bari bu ñu demee ci ay nit. baa ñu dem ci ay ñaankat di di seetlu dañuy wax ni dañoo bëgg a seetlu nangam ak nangam ndax nangam te loolu du yow wax nga ko sa yite ki ñëw di seetlu maam danaan dama am lu may seetlu waaye du wax loola boo seetee sa diggante ak sa borom nga xool ko ca la nga ca xam nga wax ko la nga xamul nga wax ko bul dugg ci loo xamul bul wax loo xamul bul def loo xamul moo tax nit ñi wax naan sama seet ak seet yi bokkul euh, bu ma la seetalee ba nga juddoo ba tey loo fi def bu ma la seetalee mën naa la ko wax hmm? ak foo foo foo foo mën a jógee ak foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew bu yàlla dogalee ma seetal la danaa la wax loo mën a def ci àdduna ak foo foo mus a jaar ak loo mën a def danaa la ko wax xam nga sët sët sët day doon maam ci lu bari sunu maam maam manta moom fatiha maa ngi ko waxoon ci émission bee jàll maa ngi waxoon ni ci ci sekkarab alxuraan mooy bisimilahi rahmaani rahim di ma basmala lu waay bëgg nga mbaa ne mbaa nga di ko ñoddi boo ko ci wutee rek mën nga koo ci am waaye nag ci wutin wu jaar yoon nga xam ni nga koy wutee ak ni nga ko war a sàkkoo ak ni nga ko war a defee loolu boo ko xamee ni nga ko bëggee rek ni nga ko amee noonu waaye eh, nooy yéege ci garab te jaaroo ci ci date bi bu boobaa la nga bëgg mën koo bañ am bu dee ñi nga xam dañoo nekk ci bitti nag euh, ñooñu yaa ngi jëflante ñoom ci wàllu seet tim euh, seet googu euh, ce que mën nga ci mën nañ ci ñëwaat ñi xam ne dañuy sori mënuñoo ñëw nan ngay jëflante ak ñoom man ñi may liggéeyal ñëpp ñi nekk ci ci bitim réew moo ci ëpp ñi nekk ci réew mi ñi may jëflanteel ñëpp daanaka ci ci bitim réew mi lan lan lan nekk ñii dama leen di seetal ñii ñi ngi ma ciy defal lu nekk ci àdduna lu ne ñii ci seet képp la ni seet lan lan seq ba ba lu baree bari ñu seq ko man ak ñoom nit bala ngaa mën a ñaan dangaa mën a seet boo mënta seet doo doon koo xam ni nit man dana mën a ñaan te du mën a seet waaye boole ñaar yëpp moo jafe nit booy ñaan war ngaa mën a seet mën a ñaan sama maam ji jur sama way jur doxoon na fekk sëñ Tuubaa xuma maa ngi wax nii bu jaan musaan a ñëw ca ci ca ca fee ca dëkk ba bu bu jaan musaana màtt nit bu ñëwee ñu wax ko ni ko jaan daa màtt nit bu egsee bu tàccoo rek da nga jëlee daal di wàcce hmm? waaw. sëñ Abdoulaye day def ci loolu. waaw loolu ñaan bawul da xam nga sët dama laa wax ni la sëtay sëtay doon maam sët mooy doon maam man ñaan ku ma koy defal ci àdduna ñu seq ñaan man ak yow du ma xool li may jox sa sama diggante ak sama borom mi ma sàkk moom ma laay xool njëkk ñi may seetaan ñi may seetaan te may jëflante ak ñoom xam na ni lu ma seq ñoom sama sama diggante sama diggante ak borom laa ciy njëkk sàmm ba noppi door cee sàmm sama diggante ak ñoom ndax nit ñi ci eh, ñëw ci yow tey ne dama bëgg nga ñaanal ma am na fu mu njëkkee kon bu ñëwee doxal ak moom ci ni nga war a doxee ak nii saw doxin boo ko defee rek doo juum ci lu mu mën a doon waaye di doxe nii nit ñëw bëgg nii nii ngay doxe nga doxe noonu loolu daf lay sonal te daf lay yàqal ci lu bari bari ñu bëri ñu may jàmbat nee nañ eh, yow da nga jafee jot téléphone loolu lan moo waral loolu jafe gee jot ak yooyu waaw xam nga bu fekkente ne daa am liggéey boo xam ne mooy sa liggéey sama borom nattu la ci mu doon liggéey boo xam ne daa am noo ko war a liggéeyee maanaam yu bari da koy teg ne da ngay teg téléphone yi ne teg yu bari yu bari da koy teg ne fi ne média rek ba ci ba ci daree. génn waaw ndax lii kenn du la gis ay yoon yoon maa ngi la koy topp boobu ba léegi mënu ma fexe bañ am jataay. loolu loolu li ko waral mooy nit ku nekk eh, daa am mission bu la di doxloo mission ba daa am noo ko war a doxee. léegi lii bi mu jotee nit ñëpp réew mi ak bitim réew ñëpp di ko sàkku naan ma da war a génn ci télé yi wax ndax euh, ñun ñuy jëflanteeg yow ñu ngi seetaan ñeneen te yow li ñuy jëflanteeg yow euh, njariñ li ak nim mën a gaawe ak nim mën a doxee lu tax doo génn moo tax bi nga bi nga waxee ba insisté ci man la danaa danaa danaa danaa ko jéem a def ñu def ko nga ñëw te yow it ngay ngay ngay koo xam ne nii euh, ak lu lu baax rek nga ci jublu ak yéene nit ñi nit ñi jàmm moo tax Euh, ku ni ñaanal mbaa ñu di la seetal mbaa ñuy seq yow lu man a doon rek dañ ciy jiital suñu diggante ak sama borom waaw. mu mel ne jamono ji xam naa dañuy daal dugg ci liggéey bi ci yu ëpp yi ngay yëngu euh, man naa ne li nga xam moom moo di wàllu liggéey léegi dafa dafa daj réew mi ñaar baa ñett koo gis rek ñun dañ maa liggéey wàllu boobu est-ce que Sëñ mu ngi ci waaw man de du ko def man de du ma liggéey nit dana nit koo xam ni daa bëgg soxna mbaa kii bëgg borom kër mbaa ki am ku mu bëgganteel bëgg kooka bëgg ko mbaa nit koo xam ne daa am boroom kër bëgg mu topp ko loolu moom danaa ci liggéey waaye liggéeyal ma nit mu dof mbaa nga liggéeyal ma nit mu mel neneen neen ak neen loolu moom du sama liggéey waaye nit koo xam ne dangaa am koy bëgganteel nga woo ma man ak yow nu jëflante gën ngaa yàgg ci ñetti fan bu ko yàlla dogalee ci carte nu sans gën ngaa yàgg ñetti fan buñ ko jëflantee kooka ku mën doon nag mooy naar lu mën a doon ci àdduna ku mën a doon rek boo ko bëggee nu jëflante man ak yow ci ñetti fan man ngaa téye xaalis bi nga may jox ba noppi ba teg sa bët li ma la wax door maa jox sa xaalis. ah loolu de gars yi leer loolu moom maa ngi ko doog a déggum Sëñ Abdou Lahad Sëñ Abdou Lahad dafa am de. waaw loolu mënta xam nga xam nga xam nga ñaan mënta bokk. Uh-huh. ñaan mënta bokk te aw dox yi nit mënta bokk. Uh, donn dama laa wax léegi ni la sëtëy donn maam. waaw te man damaa xam bu wér gëm bu wér ni maam maa donn téere yeeg daa yi mu mel ne ay jaaro ay jamono déggoon naa ko fi mais man jaaro yi xanaa bala maa génn jaaro yi est-ce que tam nga leeral ko gars yi ndax jaaro yi léegi dafa bëri ci jaaro Serigne Abdou Lahat euh, est-ce que est-ce waaw kilifa yooyu gis ci ci ci ci ci réew mi ak bitim kilifa yu bari ak ci ngóor gi ak fu mën a ne ñu ci bari booy booy booy gis boo leen gisee ñu takk jaaro ñu ci bari sama jaaro lan takk hmm? sama jaaro bu fekkoon amoo dara mbaa mënoo am dara nga takk jaaro bi boo takk boo takkee jaaro bi moom lépp lu nekkoon ci yow loo xam ne dalay yàqal mbaa loo bëgg mbaa xaalis boo bëgg muy ñëw mbaa nga ñàkk ko liggéey mbaa lu baree bari la ci yow bu neexee yàlla sama borom boo takkee jaaro bi loolu moom ci fan yu néew nga teg ci sa wàllu liggéey comme ni nga ko waxee ñi nga xam ne dañu dañoo bëgg place am ay jafe-jafe loolu tam ndax suñu abdoulaye dina ci yëngu. waaw euh, xam nga bu fekkee da ngay ñaan. dangay dangay jàng lépp xam nga xam nga ni dama génn ci bitim réew génn ci réew mi jàngi xam-xam am xam-xam boo doon ba noppi génn génnaat wutiwaat leneen kon da nga darale ñaari jaar bi nga daralee nag ñaari jaar ñaari jaar yi ku ñëw rek nam bëggee ak nam bëggee ay mbiram doxe noona noona ca ngay liggéey ak moom waaye koo xam ne nii mënoo am liggéey nu jëflante man ak yow boo génnee balaa mat semaine de bu neexee yàlla sa borom nga amul liggéey bu fekkee ci bureau bureau nga bëgg a liggéey nga am ay kayit mënoo am ay liggéey mbaa nga bëgg ay kayit mënoo ko am buñ jëflantee balaa mat semaine nga am ko ci kàttanu sa borom. moom ñi nga xam ne comme ñu mel na ñi nekk ci ay procès bëgg ay kayit comme ni nga ko waxee bëgg a ñëw ñoom itam euh, kon nag gaa ñi li ñu koy waxee mooy ki nga xam ne moom moo di sëñ Abdou Lahad Seck góor yàlla moom mu ngi fi ngir fas yéene euh, faj. aajoy jaam ñi euh, suñu ablaat euh, am na benn feebar boo xam ne jamono ji lu daj la kàpp adduna bi mën naa ne muy mbirum télé loolu ana ndax suñu ablaat dina ci yëngu waaw télé télé de duma ci yëngu xam nga nit ku nekk am na am na am na am na am na am na looy liggéey ak loo liggéeyut waaye yor naa loo xam ne de bu ma la ko joxee bu fekkente ne da ngaa doon góor boo xam ne góor nga bu ma la ko joxee mun doo tële boo ko takkee bu fekkente ne seytaane dalaa jàpp am naa fi cëwri boo xam ne bu ma la ko joxee nga takk ko deesu la liggéey jàpp la sëriñ mënu laa jàpp saytaane mënu laa jàpp lenn loo xam ne day gàllankoor la mën a jàpp amul waaw. ci loolu ku dikk ba fii rek fi nga xam ne moo di Sëriñ ab Lahad bu jëflanteeg yow incha allah di nga ko ci. cëw cëwri yaa ngi fii nit ñi dañ koy dañ koy jësi maanaam dama koy defar ba mu bari ma def ko ci kii daanaka yi ciy dem réew ma ëpp sax yi ci nekk ci ci réew mi. Eh, nit ñi xam nañ ko xàmmee xam nañ cëwri yi kun gis nga nga yor ko mbaa nga takk ko dana xam ne lii sama cëwri ndax suñu Abdou Lahat euh, mun nañ ko xaar mu nekk ci yeneen bërëb wala yeneen dëkk yoo xam ne ñi nga xam ne nekk nañ ci yeneen euh, gox yu fasantiko yoo xam ne nii ci Touba wala feneen euh, est-ce que mën nga ñoo indil foofu tamit. waaw xam nga man maa ngi Touba fi lay liggéey nit booy liggéeyal yàlla fa nga dëkk nga koy defee te Touba dafa neex a liggéeyale sans borom waaye dañ nekk dakaar dana nekk Mbuur ak tuuba ak réew mi bitim réew bi fépp fu na fi nit soxla rek dana ñëw gisante yow la nga bëgg ñu defal la ko te dem. ci wàllu dugg xalwa ak yooyu ak guñ ci woon am na ñu ma koy laaj ndax sëñ Abdou Lahat euh, dina ko def dugg xalwa ak yooyu. waaw bi nu ko mujjee def ak léegi matagul une semaine xam nga nit euh, war ngay duggal sa bopp sax xalwa bu fekkee da ngay jaamu yàlla war ngay wéet ak sa borom yenn nga tëju wéet sa borom di jaamu yàlla ci ci ni mu waree ngir nit war ngaa war ngaa fonk jaamu yàlla ndax boo fonkul jaamu yàlla euh, lu ne mën na laa fakk moo tax xalwatu moom yi may dugg ak yi may duggal nit ñi daa bokkul daa am yoo xam ne waaw dafa am différence daa yoo xam ne man maa koy duggal sama bopp personnel ngir damay jaamu yàlla am yoo xam ne nit ñee ñëw bëgg ku leen duggal xalwa ma duggal leen xalwa am na xalwa wax am na xalwatu boo xam ne danañ ko def fukki fan ak juróom am na boo xam ne danaa ko def fukki fan am na boo xam ne danaa ko def juróom benn fan am na boo xam ne ñetti fan laa koy def waaw. te yëpp rek am ku ko soxla fu mu mën a nekk rek moom bu ngeen jëflantee rek bu ngeen déggante di ci. waaw bari na bari na bari na ñu ma koy jëflanteel ñu ma koy jëflanteel ñoo ëpp sax ci ñi ma ko ñi may ñi may jëflanteel ci xalwatu mu ëpp ñi ma ñi ma ci dul jëflanteel ñi ma dëkkal ak ñiy seetaan xam na ni ñi may ñi jëflanteel ci xalwatu moo ëpp ñi ma dul jëflanteel mu mel ne am na yu ñu may wax fan yi yu ma dégg man tey man moom loolu dama ko mësul mësta gis xañ na ñu bëri tamit am na ñoo xam ñi ngi seetaan mën naa ne bu ñu ko gisee tamit bëriwul ñu koy joxe mooy ay gilet gilet yi moom li ma ci xamal mooy sauvetage laa xam si la ko war a dem ci ndox mi mais suñu blaat gilet yi moom lan mooy gilet yi waaw gilet yi de moom ku ko am man nga xam ni të nga të li jafe muy të koo xam ne yàlla yàlla yàlla yàlla defal na la nga sol sama gilet mbaa ma jox la ab gilet nga sol ko gilet bi moom boo ko xësee ba sol doon nga ko xam ni tënga cat mënu laa jàpp liggéey mënu jàpp lenn loo xam ne day gàllankoor nit loola mën a jàpp. si bu wala bu ñëw fi rek dina ko mën a dina jàppandi. waaw dana dana dana jàpp ne ci bu yomb ci bu yomb am na sile yoo xam ne nii xam nga sile nit ku nekk daa am sile bu mu war a sol boo bu dikkee nga jox ko sileem defaral ko sileem waaye xam nga jàpp. xool sile bii liggéeyee ko nii daal kii de sile bii laa ko war a jox kii sile bii laa ko war a jox kii sile bii laa ko a jox du bokk waaye bu nit ñëwee bëgg sile da ngay xool moom rawxaanam ban sile la war a am ak ci lan nga ko war a joxe ak nan nan nan la war a demee moom bii da koy sol dootu ko sumi wala bii da koy sol ay ajjuma la koy sol wala alxames mbaa altine yooyu yooyu da cee da cee amale waaye sile bi daal ko koo xam ni am nga sile bi moom mën ngaa man ngaa tëdd te nelaw boo doon tëdd ni nelaw sax di am xaalis waaw. ah gars yi kon sile bi mat naa am sëñ Abdou Lahad xam naa sile bi faaw ñu ko loolu moom maa ngi koy doog a dégg naa mën nañu wax ba sëñ Abdou Lahad borom sile yi ndax borom sile yi amagul ngi koy doog a dégg. waaye nag sile yi moom faaw ñu gis ko ëpp mu ndax nit ñi nga xam ne ñoom ngay jëflanteel tim ak rawat na eh, jamono jii nga xam ne yëngu-yëngu yu bari na ci réew mi yaa ngi maanaam euh, xeeti ndaw ñi déeg yi mi ngi bari ni maa ngi jégalu ci kàddu gi faatante bi ana yenn kàddu yoo xam ne di nga ko di nga ko soññee ndaw ñi rawat na ndaw ñi ni ñàkkee fonk ak li nga xam di gàllaaj waaw maam euh, nit gàllaaj gàlloo nit dangay am gàllaaj boo wutul gàllaaj ndax gàllaaj daaw daaw nit da ko war a am daal nit nit booy booy dox ci àdduna di dund fene ñaar ñoo gis ñu ànd ka ëpp gàllaaj moo ca xaalis boo gisee ñaar di dem nga ni kii nu mu amee lii ak lii mu am fu mu ko jëlee maam man la waat ni kii di kii kii nii di dox de gàllaaj gi ni mu ko amee mooy daa ëpp maanaam ni mu amee xaalisam daa ëpp kii gàllaaj gàllaaj moom ku la ko ëpp rek moo la mën a moo la moo la ëpp xaalis ndax sama borom da ko digle ndax bu bu doonul loo xam bu doonul woon loo xam ne daa war a am yàlla sama borom duñu ko digal yónent bi sallallahu alayhi wa sallam duñu ko digal te njabar amul kum mënta jàpp kon nit ku ne war ngaa fexe ba def ci sa jëmm ji ay dëkk ba ku jugoon doon bëgg a ñëw ci yow di la def dara loolu moom ca kawam lay daal di këpp am na ñoo xam ne moom të tëwal naa leen te ñoom xam na ni tën ndax am na ñoo xam ni tëwal naa leen te tënam waaw sëñ Abdou Lahad jamono ji ak fi mu toll gis na kan ku nekk xam ne taw di fi jaar ba réew mi lu bëree bëri kii na ana ay njariñ wala loo xam di nga ko mën a baaxee ñi nga xam ñoom ñooy seetaan eh, di bàyyi xel eh, jamono ji di 24 actu ngir eh, loo xam da nga leen ko mën a baax rawat na borom kër yi jamono ji tabaski bi si naa xeet yooyu waaw maa ngi leen di baaxee bu fekkee danoo bëgg xaalis wala xadd karam naa bani aadama wa amal naahum fil barri wal bahri wa rasaqnaahum min a tayibatin wa fadalnaahum ala kasirin mimman xalaqnaa tafdilan ñu def ko vingt-huit fois nan ko essayé rek di ko def suba ak ngoon ku ko def bisu set vingt-huit fois xaalis moom doo ko ñàkk. boo xam da nga koy may gars yi rawat na jamono waaye xaalis dafin doon li moom kenn maam mucc nag jamono ji ndax. ayatu kursi yi rek boo koy boo koy def boo ko manee saxal bisu set nga saxal ci dik ci def fukki yoon ak benn ba juróom-ñaari yoon maanaam doo kenn du la liggéey jàpp la kenn du la yomb na yomb yooyu yomb na waaye daal li ma li ma leen mën a baaxee daal mooy xale yi topp toll ci jaamu yàlla gone moom balaa të daa nangoo jaamu yàlla noonu jaamu ji yàlla te yàlla te doyloo yàlla ndax euh, mooy daa kenn nan jaamu yàlla looloo mag ëppal ëppal intérêt ndax nit kuy mooy mënoo taxawal lu lu lu taxaw mbaa ca feneen ngay bokk waaye daal nan nangoo jaamu yàlla waaw euh, sëñ Ablaat xam naa am na loo xam ne ni dañ koo kii yoon faaw ñu dugal ko ci euh, jamono ji ku ne li nga xam moom wàllu wàllu sëy yu taxaw yi ni ñu koy waxee mooy koo xam ne dafa sëy lu yàgg ca ndeysaan amul amul tu tànk kooku tamit ndax sëñ Ablaat moom tam dana ci yëngu waaw da da da danañ ci yëngu loolu bu bu ko yàlla dogalee koo xam ni sama borom daa dogal mu mu dal la bu nu jëflantee am nañ ci yoon woo xam ne bu ko yàlla dogalee euh, balaa yàgg di nga di nga di nga jël incha allahu rabbi waaw beneen tim bi nga xam ne ñu ngi koy wax mooy li nga xam ne wàllu wàllu bayre mooy ku ubbi place te place bi te dox kooku tim dafa mel ne suñu ablaat bu bu jokkoo ak yow euh, di ngeen ci jëflante. waaw kooku de bu ñu jëflantee ak moom koo xam ne daa amul bayre mbaa mu yor parking di jaay oto oto yi mu yor place bitik mbaa mën a di ca liggéey loola taa dox bu jëflantee man ak man ak moom. bu ñu jëflantee rek dana xam ne jëflante na incha allahu rabbi ci kàttanu sama borom. bu dee ñi nga xam ne dañoo bëgg borom kër te amuñu ko nag xale yu jigéen ñi comme ni nga ko waxee woon rek. waaw ah, loolu moom kuñ ci jëflanteel balaa balaa balaa yàgg balaa yàgg nga nga am nga am borom kër bu fekkente ne da bëgg soxna baa nga am koo xam ne da ngay bëgganteeg moom muy bañ baa muy kii bu ñu jëflantee man ak yow ci ñetti fan téel sa xaalis ba gis li ma la door maa jox la ci baa nga joxe li njëkk téel li ci des ba gis li ma la door maa jox li ci des waaw loolu kay loolu loolu maa ko wax. léegi comme xam naa gilet bi da nga ñu da nga koy yëkkati rek wan ko gaañi ñu ngi xam ne mais Symbiose laat moom gilet bi moom maa ngi ko doog a dégg borom gilet bi. waaw gilet bi li daal mooy gilet fii fii fii fii fii nga ko mos a gisee. waaw gilet bu mel nii moom fii la fii la fii la mos a amee waaw amul amul koo gisaat mu defaat gilet ci bii la ko la ko la ko kii waaw.

kooku mooy numéro yi nga xam moom nga mën a jokkoo ak Sëñ Abdou Lahad ku woote jëloon na nga na nga insister bàyyi ko message xam ne si Abdou Lahad daa dafa xat kon sëñ bi ginnaaw bu ñu la kiiyee ñu jox la ay kàddu yi nga xam ne moom ngay tëjee li nga xam moom moo di waxtaan wi jërëjëf Sëñ Abdou di sant bu baax di gërëm tey ñaan ñëpp jàmm ak tawféex di ñaan euh, lu lu lu lu lu ciy jub rek ñu sant ko yàlla sama borom loo ci dëngit ñu xam ni jàmm bu xeebu boo xam ne nii magul moo ko def maa ngi ñaan yàlla defal ñëpp jàmm defal leen tawféex ak Taysiir barkib sëñ Tuubaa mosul Rasuul jërëjëf. jërëjëf mbokk yi jërëjëf.